fii leen koy defee ci 28 Pro ànd ak yéen seen émission wax sa xalaat di ko defal nag yéen fii nga xamante ni mooy 28 Pro ànd ceeg suñu cameraman Bécaye xaar damaa bëgg nga waxtu loolu ak noo ko gisee. waaw les téléspectateurs. waaw fii dana neex dina yëngu. waaw waaw dana mel ne mbaxalum banaana dana nooy. fii ci weeru koor yi ma ànd ak sama naataango sama xarit sama doom ndey. ndeysaan Yamin bàyyi Yamin Jabaa ñu gën koo xam ci mbaaya. waaw eh. <laughs> li nga xamante ni mooy émission war sa xalaat ku ci nekk am nga xalaat boo am war koo indi fii ci ñun ñu jël xalaat boobu partagé ko ak yow a euh, au niveau national partagé ko euh, je crois que kon yaakaar naa ni yéen nga xamante ni nekk 28 pro fii kon dañ ciy ànd ak yéen ànd ci suñu cameraman Bécaye kon dañuy da ngeen di daw rek daal di xooli sa site boobu nga xamante ni mooy 28 pro pro danay neex de 28 pro rek ah. di xale e foofu dana yëngu waay les deux imbéciles la nga xam ne ñun ay xaj lañ waaw war a jàkkaarloog yéen fii nga xamante ni eh. moom mooy 28 pro yaakaar naa ci wéeru koor yi dana dana neex ki nag mu doon loo xamante ni képp koo xamante ni am nga loo bëgg jàll jàllale mhm. fii ci 28 pro mhm. bëgg nit ñi gis ko da ngay ñëw fii rek waaw ndaxte man sax ci jëmmi boppam waaw Cheikh Sa woo ne ma ndeysaan nee na moom mooy premier sponsor fii ci émission bi 28 pro moom si ne bu yàgg <laughs> sama pël bu rafet ba